yow da nga tok man dama tok ñu nek ci zawiya bi ñëpp dañoo tok waye bu ne yàlla tok na nak mu ni batu togu yàlla tok xam nañ batu tok waye nan la ko yàlla defé nak mu ni lool nak mom ken xamuko yàlla rek moko xam dégg nga moo mu ni suma stawaata mu yamo ala al arsh ci arsh yàlla dafa bari kàttan de mu ni suma stawa topp mu yemoo alal arsh ca ca arash muy gàngu naayam nga mu ni yeyoo boo xam ne nag dana yelloog jëmmi yàlla ji dana yeyoog yem yemoog yàlla ndax moom mooy borom kàttan yàlla nee na wa saqara mu tàggat achamsa jant bi wal ak weer wi jant bi ak weer wi yàlla moo leen tàggat tagat moy dara nga tek ko fi ko tek diko jaarlo fi fi nga bëgg mu jaar fa mu fay jaar te duko wacc bu ñun kaw kaw yi tay fas bo amon sa fas moolu fas pour nga tak ko saret day bañ waye pour nga tak ko saret muy dox normal faaw nga tagat ko diko tak di ko jubbanti di ko duuma def ci laab muy dem ba mujj fas yi boo ko tegee ci kaw tali bi mu rombante oto yi dem du dal ci kaw oto du bañ du def dara loolu mooy tàggat loolu nag lépp lu yàlla bind yàlla def la tàggat comme noonu jant bi daf ko tàggat weer wi daf ko tàggat moo tax lu mu leen sant rek lañuy def ay jaamam lañu moo tax gis nga weer wi keroog bi mu bëggee yonent bi xar ko sallallahu alayhi wa sallam yonent baa ngi ci suuf mu jox ndigal weer wi ni ko bu la bu la bu bi ne xaral rek xaral ñaari xaaj mu xar ñaari xaaj jant bi itam di yonent bi dem na xare di xeex ak ay yéeféer xam na ni bu jant bi soowee xare bi du ko gañe mu téye jant bi moom yonent bi mu xool jant bi ni jant bi bul so ci ndigalu yàlla jant bi bañ a so nekk fi mu nekk rek yonent bi téye ko mu xeex ak gaa yi ba gañe leen jant bi soogaan du so sallallahu wa sallam loolu nag mi ngi ko amee ci kàttanu yàlla kàttanu yàlla xam nga doomu aadama yenn saa yi mu def dara waaye du moom moo ko def kàttanu yàlla gis nga nit day jaamu yàlla di topp yàlla di wéetal yàlla di bëgg yàlla ba yàlla jël moom ci dooleem jox jaam bi loolu yonent bi di wax ni inna lillaahi ibaadan iza araadu araada yàlla am na ay jaam yoo xam ne lu nu bëgg rek yàlla daf leen ci fekk du seen doole ñoom déedéet yàlla jël dooleem def ci ñoom ndax ñoom niñ toppee yàlla mu ni nit bu yeneen xadis mu ni nit du dañ mukk di ma di ma jege-jegelu ci ay naafila julli nañ jumaa ba pare nga nga beru fee julli sa ñaar rakka guddi gi nga dem sa kër def sa salaatu tasbiix jàng sa alxuraan téye sa kurus di zikkar lépp loo xam ne xam nga ni lii boo ko defee mu kontaan yàlla rek nga nekk ci di ko def di ko def di ko def di ko def bu mujj yàlla ni sama jaam bii nag bëgg naa ko si yàlla ni sama jaam bi bëgg naa ko dana day yéegi turam ba ca malaul aala ca malaaka ya mu ni diw Pape Makhtar Sylla man yàlla bëgg naa ko yéen ñëpp bëgg leen ko ñëpp a koy bëgg loola dana wax yàlla Moussa ca suuratu taahi ni ko wa alqaytu alayka mahabbatan minni bëgg gi la nit ñi bëgg ki doon rey liir yi muy firawna li tax reyu la cofeel gi tax reyu la man maa ko dugal ci xolam daf lay bëgg par force te ku jàkkaarloo daf lay bëgg wa alqaytu alayka mahabbatan minni loolu maa ko def ci yow yàlla nag noonu la def jant bi daf ko weer wi moo tax mu ne wa saqara yàlla tàggat achamsu jant bi wal xamara ak weer wi kullun képp kenn ci ñoom ñaar yejiri dafay daw ci benn falak ba kañ ila ajalin musamman ba keroog yowmal qiyaam feeg yowmal qiyaam jotul weer wi du fi jóge jant bi du fi jóge yàlla moomu nag yu dëbbiru yàlla mooy atte al amr mbir yi yu fassilu yàlla mooy teqale al ayaati kaawtéef yi wane ni yàlla kenn la te amul ben kawteef budul wone ni yàlla kenn la kaw loo gis rek da ngay jàng labib moko waxon kiko waxon ko la du won julit te waxam bi yonent bi daf ko dan def ci ay xutbaam wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wa lillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahid ko kiko waxon du julit yéeféer la wax bi ni mu nekkee dëgg ak ni mu wéetalee yàlla loolu tax wax bu yonent bi daf ko daan waxé ci ay xutbaam dafa daan tok mu ni nit ñi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wa lillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahidun xola li rek man nga ci xam yàlla porta li radio bi rek sa portable bi man na doli sa ngam yàlla si yére bi nga sol mën na dolli si ngëm yàlla taw bi mën na dolli sa ngëm yàlla guddi gi mën na dolli ngëm yàlla bëccëg bi mën na dolli si ngëm yàlla nit ñi dee mën na dolli si ngëm yàlla nit ñi weddi yàlla mën na dolli si ngëm yàlla wa fi kulli cheyin lépp loo gis rek moo tax gis nga nitu yàlla yi ñoom ñoom loo gis rek ñoom yàlla lañ ciy jànge ñoom loo gis yàlla lañ ci jànge te yàlla lépp lu mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam so démé dang ko fa fekk dafa am suñu mam ju bax ñu nan ko mam Habib Sy radiallahu taala an doomi mam Cheikh Al Hadj malik la radiallahu taala an mu dem Côte d'Ivoire ben bis mais bi mu wacce Côte d'Ivoire mu gis ben mbolo mo xam ni ña nga naan sàngara ngay nan rek ne di teug ne ñi ñaa fecc ci seen biir ñooy fecc mais comme nitu yàlla yi ñoom lu ñu gis rek dañ ciy fàttaliku yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi mbooloo sallam mbooloo gis xelam dem ci waxu yonent bi benn waxam yonent bi moo waxoon ni fukki nit yoo gis ñu toog fukk yu toog yonent bi nee na soo xamee soo xamul benn wëli yoo ngi seen biir boo yonent bee ko wax fukki nit yoo gis ñu toog ci barab mu ni soo xamee soo xamul benn wëliyo ngi seen biir soo gisee ñuy jàngale alquran di ragal xale yi maanaam di ragal ku sonal xale ku ko dóor dóor yu metti ku ko toroxal ku ko nàngam ñoom loolu lañuy bàyyi seen xel dañuy bàyyi loolu seen xel mais bi maam Habib gisee mbooloo mi ña ngay fecc ña ngay tëgg ña nga ca naka sa dul noonu ñoom ñëpp nee góor gi togo yaaga xelam dem ci waxu yonent bi mu waxon ni fukki nit yo gis ben yonent ben wuli yo gis sen bir mu wax ci xelam ne ci xelam man de lu yonent bi wax gëm nako sallallahu alaihi wasallam ay dal xelum doomu adama jàpp na ma tay ni nan la fi wuli yu di nek mom borom cër la mom ni ko wax waye bimu waxe lo rek nee ci bir mboloma kafa fa nekk yàlla bi def ko siiñ ci siiñ yéen nitu yàlla yi di defante mu wan ko ni ko li ngay laajte li nekk ci sa xel nga koy wax kenn ki yonent bi doon wax ci la man la dégg nga ma wax kooku wan ko ni ko man la mi ngi mel ne rek kenn ñëwantee si mbooloo mi toog wax ci xelam mbooloo mi de est-ce que kenn yor na fi nàngam ci xel mi rek la ko wax ki ko fi yor yëkkati ko ni ko nii man maa ko fi yor kon yàlla moo tax nitu yàlla yi ñoom lépp yàlla lañ ciy gis dangay gis nitu yàlla dangay gis nitu yàlla boo xam ne day ñëw fii fekk xale yi ñu ngi tëgg teg ndënd yi teg sabar yi di tëgg di fecc mu ñëw ba ca booru géew ba wala ca wetu sabar ga nga gis mu def nii tekk wala nga gis ko mu lay ne tek nga koy xol mu lay jaxal fek bobu mi ngi def mu ak sunu borom te yeneen bi neena nga defal yalla mu ben waxtu mo gën nga julli junni rakka ben waxtu nga defal ko nga def ko yalla mu lu jafé la nak mu moy nga japp julli sa ñaari rakka mo xam guddila mo xam bëccëg nga daal di bi ni ni tek gëmm mel na ku nooyeetul xel mi yëpp nag nga jox ko yàlla nga bàyyi ko ci yàlla xel mi yëpp benn nit yàlla yi bu ñu lay tarbee dañ lay wax ni chaque jour donte benn cinq minutes sax na nga ko ko def na nga tëju sa néeg def mu raaxa ba ni tekk nii xam nga yenn sax nga gis ci mag ñi seen yenn photo ñu bett leen photo leen ko soo xamee dara da xam ni kii booba mu ngi def mu raaxa ba mu muraqaba mooy fugluwanteeg yàlla sa boroom subhanahu wa taala jaam bu nekk daf ko war a def bis bu nekk donte benn cinq minutes la moo xam ci guddi ga la moo xam ci bëccëg nga di ni ràtt sa néeg tëj ko jàpp ba set julli ñaar rakka ne tekk bul yëngal dara bul xalaat dara xel mi nga bàyyi ko ci yàlla lu metti la nag maanaam booy dem tuuti rek xel mi day dem feneen commencement bi waaye booy dem nuy gën a demee ndànk-ndànk rek muy gën a nooy mi ngi mel ne kuy jàng vélo di pétale yenn saa mu ni nii yenn saa mu ni nii yenn saa yi mu ni mais soo demee ba mun a pétale da ngay pétale normal da ngay dem ba mujj sax da ngay laisser te giton bi ak sa benn loxo da ngay dem ba yàgg nga laisser deux te doo daanu di pétale mais da nga koy tàmbali ndànk-ndànk rek buur nee nag yàlla wa saqara yàlla moo tàggat achamse jant bi wala xamara ak weer wi kullun képp kenn ci ñaari yejjir yi dafay daw ilaa ajalin musamman ba dig bi yàlla tudd ni fa la yem te ajal musamman mooy yowmal qiyaam yu dabbiru yàlla mooy àtte al amri mbir yépp yépp moo koy àtte lépp yu dabbirul am la yu fassilu yàlla mooy teqale al aayaati kaawteef yi wane ni moom moo am kàttan laallakum amaana lay yéen waa màkka tay nak ñun lay waxal laallakum amana li yéen doom adam yeb bi liqa'i rabbikum ci dajje gi ngeen wara dajje ak seen borom ëlëk yowmal qiyam dekki tuuxinoo na da ngeen ko gëm da ngeen ko wol yalla ngi wone katina ba legi muni wa huwa mom yàlla alladhi moy bur bi nga xamni madda mo talal al ard suuf si rek doyna na yàlla suuf rek doyna na yàlla xolal pour wan na ni yàlla mooy am kàttan gis nga suuf si ci kaw ndox la tege gis nga ndox mi suuf si tege ci kaw aw jën la tege xam nga li ma wax suuf sii ci ndox la tege ndox moomu ci wenn jën la tege moo yenu lépp pour wan la kàttanu yàlla yàlla rek moo ko mën keneen mënu ko ah moo tax nag yàlla dañ ko war a jaamu dañ ko war a wéetal dañ ko war a jox lim moom yépp وطمني وهو من يلا الذي ما يبور بين خمني مد متلل الأرض سوسي كن تلا لقط يلا وجعل يلا بيننا ما يدفنا فيها تكوسوف رواسية أي مونتاين سوسي أي مونتاين قتيري ها رواسية يلا دفتي أي مونتاين pour mu bañe peutax wa anharan yalla xoti ay dekh ci kaw soufsi ak i géej ak i sewnde ak i bëtu ndox wa min kulli samaraatin yàlla saxal bépp xeetu meññeent ci kaw suuf moom yàlla subhaanahu wa taala ba mu defee loolu ba pare jaala def na fiiha ci kaw suuf sëw zawjayni ñaari peer loo gis ci kaw suuf rek ñaar la góor ak jigéen lépp laa wax nit nit amee góor ji lépp même xottu ndox yi wàcc jóge ci kaw asamaan zawjayni la góor ak jigéen zawjayni la moo tax mu ne wa mu def fiihaa ci suuf sëw yi ñaari peer mooy góor ak jigéen isnayni ñaar ci bépp xeet xeet boo gis rek loolu la fa yàlla def wa jaxal mu def fiha ci kaw suuf zawjay ni ñaari peer isnay ni ñaar yàlla moom ba ba tey mi ngi lay wan kàttanam mu ne yuxshi yàlla mooy lëndëmal alay la guddi guddi ñuul ñuul yii di ñëw mu ñuul kukk yàlla moo ko ciy muur moo tax mu ne yuxshi yàlla mooy muur alay la guddi gi guddi gi lëndëm yàlla moo koy def annahaara bëccëg bi tamit leer gi muy leer yàllaa koy def léegi-léegi ñu ngi ci bëccëg ci kanam tuuti fi léegi ay waxtu yu néew ñu dem ci guddi moo tax ma ni yox si mooy muure alay la guddi gi annahaara bëccëg inna fi dalik naka nekk na ci lii yépp mu tudd ci boppu saar wi la aayaatin ay kawteef yi wane ni yàlla kenn la dañ ko war a wéetal waaye pour ñan li xaw mi ñeel nit ñoo xam ne yatafakkaruuna dañuy xalaat seen diggante ak seen borom bind asamaan te amul ay jën yu ko téye muy benn wàcce téere bu toll na alquran lépp di dëgg tàggat jant bi tàggat weer wi tàllal suuf si ba ba suuf si du mëbax ak ñun def ci ay montagnes yu ko téye xotti ay dex ak i géej ci biir suuf saxal ay xeeti meññent ci kaw suuf li nga bind lu nekk nga def ko paire góor ak jigéen mooy ñaari façon nga jël guddi muur ci bëccëg jël bëccëg muur ci guddi mu ni yii yëpp la aayaatin ay kawteef la yuy wane ni yàlla dana ko danañ ko wéetal li xawmin ñeen nit ñoo xam ni na danañuy xalaat ci li yàlla di bind ba tey ma ngay wax ci ay kawteefam bàyyeegul pour wane ne moom rek mooy kenn mu ne wa ardi nekk na ci suuf xita on ay pàkk yu wuute mutajaawiraatun yoo xam ne dañoo wëndeelu mutajaawiraatun yoo xam ne dafa wëndeelu luy wane ni kàttanu yàlla wa janaatun ak ay tool defal naa leen ko ci kaw suuf min anaabin jann fii firiwu fi àjjana tool lay firi wa janaatun ak i tool min anaabin yoo xam ne raisin la wa zarun ak mbay wa naqilun ak tàndarma alquran day bëri lu mu tudd garab yi day bari lu muy tudd raisin day bari lu muy tudd tàndarma day bari lu muy tudd zeytu zeytuun muy olive ndax màkka yooyu fa ëppoon loolu tax bu daan joxe misaal ci ñoom di wane garab yi mu leen saxalal faawu day tudd yooyu mu ne wa naqiilun ak ay tàndarma yoo xam ni sinwaanun yoo xam ne dañoo nuroo wa xayri sinwaanin ak yi nuroowul waaye nee na tàndarma yi nuroo cafka ak yi nuroowul cafka ak yu nuroo gisin yi xonq yi ñuul yii mel ne lu doomu taal mu ni tàndarma yooyu yëpp kat moo ne pour ma wanewaat sama kàttan tusxaa maa ko roose bi maaxin waaxidin ci benn ndox benn ndoxum taw moo leen roose yàlla nee na wanu fasdilu danañu teqale baaduha lenn la wala wanu faddilu danañu gënal baaduha lenn la عن بعد انت lenn في الاكل ci lekk da ngay jël tàndarma léegi benn tool day nekk nii tàndarma sax fii tàndarma sax fii tàndarma sax fële tàndarma sax fii nga dag bi lek cafka bim lay jox ak beul du la ko jox te ben tol la ben façon tàndarma la ben ndox mo len rose yàlla nee secret bi tax bi saf li bi saf lële nee ci man yàlla la دانو نفصلو ني گنل بعدها لن لا على بعد انت لنين في الاكل تلك ان في ذلك نك نك لا تي ما تود من يالا من لا ايات اي كاوتف لا لقوم نيل ني نيو خامي ياكلون دانيو ام خل ولا ياكلون دانيو خلو بمن ستنتل لي الله سبحانه وتعالى دف يب مو واخ داي واني اي كاوتيفام mënoon na ko wane te mënoon na wane kawteef te du def yooyu tàndarma yi mënoon nañu ñor te yàlla du wàccee benn xottu ndox benn ndox du wàcc dafa am ñaari nit yàlla yu am kashf kashf mooy koo xam ni yàlla dana la wan lu mu wanul jaam yi benn nitu yàlla bi ñëw ci benn bi ne ko man de dafa am ren lu ma yàlla wan dafa am ñaari nitu yàlla yu am kashf kashf mooy koo xam ne bëtam lii téye si fi sa bët yem bëtam yemu fa loolu mooy kashf man na ngeen baal ma sama tafsir damay waxaale nitu yàlla yi dégg ma ñépp baal dama leen di wax wax damay xool seen tafsir yi xool niñ déggee alxuraan ak ñi nga xam ne dañuy firi alxuraan kese te dun amuñu da amuñu amuñu amuñu shawqa wala amuñu mashrab ba gis firi yi day wuute loolu tax man dama leen di tudd ngeen baal ma dégg nga benn nitu yàlla bi ñëw ci beneen nitu yàlla bi ni ko man yàlla dafa am lu ma xamal ren mu ne ko lan la mu ne ko defa ni ma comme yow baykat nga man baykat laa dafa ni ren moom du wàccee benn xottu ndox maanaam nawet bi benn ndox du wàcc ci suuf mais nitu yàlla bi ni ko jëf jërëjëf jazakumullahu xayran yàlla yàlla fay la yiw ci loolu mu génn mu dajale taalibe yëpp njaboot yëpp ci misaal mu leen daaw lu ngeen bayoon ci gerte ñu ne ko bayoon nañu lu toll ak benn hectare mu ne ren faxe leen juróomi hectare dugub ñu ne ko genn wàllu hectare mu ne ren faxe leen ñetti hectare ñebbe lu mu wax rek ñu ni ko lii lañ ci bayoon mu ful ko gaa yi dem defar àll bi ruuj defar lépp mu ni même gerte gi bu leen xam nga gerte balaa nga koy jiw dangay ngay xaar ba mu taw ba bàq bi tooy mu ni gerte gi yëpp na ngeen ko sërqal suul leen ko noonu ci suuf si suul yëpp dem toog tawul waaye teewul moom xam gi mu xam ni taw bi du ñoral yàlla mooy ñoral moom mu dem suul ni yàlla xam naa ni man taw du ñoral de benn sabab la rek man nga ñoral te du taw sama yëfa ngoog man sa loxo laa teg moo tax yenn saa nit yàlla suy def dara da naan yëfi yi fi ngeen baal ma ci wax bi lay def yi fi dof lay def nee na mu dem suul yëpp gaa dem toog ci kër gi amul bayar amul dara ñëpp toog mu dem diir dem ci àll ba fekk li mu fa jëmbatoon yëpp sax àll bi yëpp naat nit yàlla bee benn bis muy ñëw di ko seet si mu jaar ci àll ba foofa jaarale ci toolam yi fekk mu naat mu ñëw ci kër gi ni ko waaw diw yow lu xew mu ne ko ci lan mu ko yow sa tol ni mu mel kon da nga bay mu ko bay na kay mu ko ah, ak lima la waxoon da nga ko gëmul mu ko motax ma bay ko ko motax ma bay yow yalla da la xamal ni ren du wàccee ndox waaye waxu la du saxal man nak ma xam ni yalla du wacce ndox waye saxal mom ci katanu yalla la nek dem jiw rek baye ak yalla ha ah? dem jiw rek baye ak yalla ah mag ñi yenn saa ñuy def loo xam ni biñ koy def yow buñ la ko def loo woon yow da bañ doo ko def parce waaw parce que waaw parce que su wóolu yàlla yow àggul foofu ñoom ne dañoo wóolu woon yàlla bàyyi na wax yooyu nag ñu ngi waxaat ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi xool a kawteef yi yëpp mu wax waa màkk waa màkk gëmunu léegi nag loolu moo yéem yonent bi yàlla ni que nag li la yéem yow am na lu ko gën a yéeme parce que yow ñàkk gëm gee leen yéem man li ma jaaxal ci ñoom bu fekkoon danaa jaaxle man yàlla man maa leen bind du woon dara maa jël suuf ma bind ak ban ak ndox ma tël ko bind ci seen baay aadama alayhi salaatu wassalaam ñoom ñëpp ma bind leen ci aadama bind leen ci ndox jaarale ko ci jigéen maanaam ñaari ndox ndax doomu aadama bu nekk yàlla ngi la bind ci ñaari ndox benn ndox bi mi ngi jóge ci ndiggal góor ngeen baal ma beneen ndox bi mi ngi jóge ci baatu jigéen ngeen baal ma moom lay wax ci wa samaa'i wa taariqi yaxruju min bayni sulbi wa taraa'ibi yàlla ne man doomu aadama ci ndox moo xam ne yaxruju mi ngi génn min bayni sulbi ci diggante ndiggu góor wa bi ak sidditu baatu jigéen ndox mi nit di nekk ba sosu bu lii déparé ci ci ndigg di daw beneen bi dafay déparé ca dëndi baat ñoom ñaar ñooy daje boobu la ci la yàlla di bind doomu aadama nee nag man ma bind leen ci dox moom génne leen ci àdduna bi rayaat leen ñu suul leen ci biir suuf ñoom nag ñuy werante ak yow naan ndax ñoom bu nu deewee ba nekk suuf ba seen yax yi fëtëx ndax daañ leen dekkal nga leen waaw ñu reetaan waaye léegi laajal ma leen laajal ma leen defar lu amul loo xam ne mësul am nga defar ko ak réparer lu am ba pare bu gën a yomb ah? fii am na ñoo ko boo demoon léegi marché Grand Yoff bi ngeen baal ma am ñoo ko ñëw defar portable mais sa portable lu ci paan boo la ko joxee léegi ñu defar ko te fi ñuy defaree portable sax xamuñu ko waaw kooku ki defaroon portable bi ba pare su la nii man bu paanee mun naa koo defar kooku doo ko gëm mais boo ko gëmul amoo xel loolu nag yi la yàlla di wax fii yonent bi mu ne ko in taajab su fekkee da ngaa yéemu yow yonent bi ci yéeféer yi weddi gin la weddi fa ajabun am na leneen lu war a gën a yéeme yonent bi ne ko tek tekk di ko déglu mu ni qawluhum seen wax ji ñuy wax di weddi dekk naan la a iza kunna ndax ñun suñu déwé ba nekk turaaban suuf a inna nak ndax ñun la fi xalqin jadidin yàlla daf ñuy bindat bind bu bes tak ñu dekk yàlla niko wax len waw waye na la xamal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam niko ni ko ñooñu di wax ñooñu alladheena moy ga ñooñu di wax lolu alladheena moy gaay nga xamni kafaro weddi nañu bi rabbihim sen borom ñoo weddi yàlla ku weddi dekk weddi nga yàlla واولئك نيونو الاغلال كخي موي شيني شيني سفريا يالا نتي يالا موسى في اعناقهم يلا نين دناكو بولك سين لوخيا تاك كو سكين كاول دوخيا واولئك نيونو ويد ديكي اصحاب النار نيونو واكر سفرا هم نيوم خالدون وي سخلاني موي بيل فيها تبير بير سفرا نيونو دان دوكو سفرا دي. buur nee na ñooñu ba tey wa yastaajiluunaka ñoom yéeféer yi ñu ngi lay sàkkoo gaawtuloo bi sa yi ati ci mbugal mi toujours ñu ngi ñëw naan yonent bi waaw yow mbugal mi ngay wax yàlla dana ko wàccee suñu kaw xanaa du ñëw na mbugal mi wàcc wax nañ ko fa fële ci suuratu tawbati boobu dañ koy ñaan ci suuratu tawbati naan allahuma in kaana hada huwa alxaqu min indika famtir alayna xijaratan min alsamaai aw itina bi adabin alimi xoolal waxi dof yooyu ñu ngi naan yàlla su fekkee ni lii yonent bi indi di ko woote ak alquran ji bu fekkee yonent bi li muy woote ni yonent la dëgg la alquran dëgg la wàcceel ay xeer ci sunu kaw nga mbugal ñu benn yoon waaw moo tax yéeféer a dof loo xanaa kay balaa caa nga ni yàlla lii bu dee dëgg kay dugal ñu ci ah waaye ñoom dañ ne allahumma yow yàlla in kaana su fekkee nekk na haza lii yonent bi di wax alxaq mooy dëgg famtir yàlla nga taw alaynaa ci suñu kaw hijaaratan ay xeer yoo xam min si jiilin mi ngi jóge ci safaraw si jiil aw aatinaa bi adabin alimin wala nga mbugal ñu mbugal mu metti yàlla ni ñaan nañu ñaan gi waaye ay budul woon ak sa jëmm ci mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow laa leen ruse ndax wa maa kaana allahu muazzibuhum وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما لا وخون نيو ماينا لا لوما مايل كين دوما مبوغل سا فيك ياغي دوندو سي سين بير دوما لين مبوغل ناخ يو لا لين روسي كون دون مانتي واخ ما لين دي خاري الا يوم القيامه دوما لين ديف في دار سو جوغي ييتام فيك نيغي ديف بكار دي واخ استغفر الله فيك نيم كوي ديف دوما لين مبوغل moo tax ñu jullit ñi ñaari garantie lañu amoon benn bi mooy jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci suñu biir feeg yonent baa suñu biir kenn mbugal yonent bi nag ci nekkatul ci suñu biir waaye ci baatin mi ngi ci suñu biir léegi bi ñuy julli rek kenn ku nekk wax nga ci baatin ni yonent bi yaa sama kanam ndax bi ngeen léegi kenn ku nekk wax nga ku ne ko assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu te alayka mooy ki nga jàkkaarloo kon kenn ku nekk ci baatin jàpp nga ne yonent baa ngi ci sa biir jógul ci yow te du fi jógee ndax waxal na ko boppam nee na yéen ñi ñëw na war ku taxaw ci sama xabru daal ni ma assalaamu aleyka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yàlla daf ma delloo sama ruu man la wa aleykum salaam Bachiru Baan doomu Cerno Hamidou Yoro Baan ak Soxna Ramata Njaay kenn ku nekk dinaa jaar ci noonu ci yow di ngeen di bare bare ku ma nuyu ci sama bàmmeel bi sama sama rawdu nee na yàlla dina ma delloo sama ruux ma jaar ci sa tur jaar ci sa turu baay jaar ci sa turu yaay seen biir waaye tamit soo fi nekkatul feeg ñu ngi sax ci baatu astaghfirullah du ma leen mbugal astaghfirullah feeg ñu ngi ci sax yàlla du ñu mbugal ndax yonent bi moo ni attaibu min zanbi kaman la zanba la yonent bi ne ki def bàkkaar daf sa bàkkaar ba yàgg nga tiit ci bàkkaar yi nga dem tuub ko yàgg ki ko mosul def yéena ko yéena yem mo taxon mu ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا من يالو غني جيغلنا لا سباكار نيك اك سباكار موتي ندم جيغلنا لا من دي بيس بو نيك دنا توب سي موم جوروم نيار فك با تيمير ndegam yonent bi mooy tuub juróom-ñaar fukk ba téeméer asakantuma laa ku mel ni Pape Makhtar nga xam ne yow ci bàkkaar nga dëkk kon foo toll dil tuub foo toll dil bari looy def astaghfirullah dil bari loo koy def di tuub ci yàlla subhanahu wa taala buur ne wa yastaajiluunaka ñu ngi lay sàkkoo gaawtuloo بسيئات تشمبوغل مي السيئه لو نياو لي فيري مي في مبوغل في فيري دنگ قبل الحسنه اللي جيتو يرمني يالا بون وقت قالت وينه من قبلهم لين جيتون المثلات اي اكزامبل مبوغل نعم بو خولي في نيت هود ياغي ني جيغل ما لين في ما لين مبوغل نيت ينت يالا نوحي ما لين مبوغل يوسف نيو ما لين مبوغل تي سين kon ñoom bu ñu demee gis gent yooyu ay dëkk yoo xam ne nit lu ya ay dëkk ba yépp malaakaa ñëw yëkkati suuf si yóbbu leen ba asamaanu benneel dëpp leen fa jaalna aliha saafilaha ci alquran mu mbugal leen ñu nekk fii tout près jege màkk lool ñoom ñu naan na mbugal mi gaaw a ñëw ah yaa tax waaye bu dul woon ak yow waxatuñ ko moo tax mu ne waye saajilu nag ñu ngi lay sàkkoo yàkkamtiloo bi sayyiati ci mbugal mi xabla alxasana la jiitu sama yërmande ci ñoom waaye waxat xalat jiitu woon na de min qablihim la njëkk seen ñoom ñii almasulaatu ay nit ñoo xam ne mën nañoo jël ci ñoom exemple ndax mbugal naa leen mbugal yu metti waaye wa inna rabbaka sa borom nag la zo maxfiratin boromu njëggal la li naa si ñeel nit ñi ala zulmihim ci tooñ gin koy tooñ yàlla boo ko tooñee soo ko jéggaloo dañ la jéggal waaye wa inna rabbaka sa borom tamit la shadidul iqaabi ku tar mbugal la ku metti mbugal la ci ki nga xam ne dafa tooñ ba pare bañ a jéggalu bañ a tuub léegi nag bàyyi nañ loolu yéeféer yi ñu ngi ñëwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey duñ ko bàyyi mukk di ko wax ni yow soo nekkoon yonent yàlla daf lay jox kaawteef mooy aaya bi ci kanam kaw kaawteef Moussa yonent la woon yàlla jox na ko yat mu koy sànni mu doon jaan yow sa ana sa kaawteef Moussa yonent la woon da daan jël loxoom bi dugal ko nii ci poosam génnee ko tàllal ko nii mu leer naññ yow ana sa kawtéef saalix yonent yàlla saalix fii la dëkkoon ba ko nitam ñu indi ñu kawtéef dafa xëy dajale dëkk ba yëpp ñu leen kawtéef ngeen bëgg ñu ne mu ñu waaw mu ni dinaa leen ko génneel tey mas ngeen gis xeer wuy jur ñu ni gis nga dafa dof da nga waxi dofam yi mu ni ndax mas ngeen gis xeer wuy jur doj wuy jur ñu ni ko déedéet mu ni yéen dëkk bi li ngeen gën a bëgg muy seen alal lan la ñu ni giléem mu ni xool leen xeer wi dinaa fi génne léegi giléem waaye balaa ma koy génnee dem leen ngeen wër xeer bi su nga yéeféer dafa rëy dafa rëy bopp te xel mi dafay loo ko indil day indi leneen mu ni dem leen ngeen xool xeer bi parce boobu mi ngi bañ gi leen ci xeer ñu ko ah ya ko làqoon ci ginnaaw rek ñu ne jëlin ngeen wër xéer ñu xol xéer yi yëpp mu ni gis leen fa dara ñu dédét mu ni xol leen bu baax ñu way xol lañ mu ni ci bi xéer bi nak lay laay gi gileem gu nekk seen kawtéef ci ndigalu yalla ak katanu yalla ñepp taxaw sepp ko mu ni su ma ko defee da ngeen gëm ñu ni bokay def ñuy gëm mu jakarlo xeer wi waxa niko xeer wi ni ko gilem na genn ci sa biir ci ndigalu yalla ak katnam gilem gilem nga genn mu ne leen nag yéen a doon ñaan kaawteef xam nga ab yenent lum mu la indilul bu ko laaj parce que lim la indilul soo ko rek mu nek sa fitna legi nak gilem lañ doon laaj gilem gi léegi te dëkk bi bariwul ndox te giléem gi day naan léegi nag mun leen giléem gi nag dafa indaale charte de charte bi mu indi mooy dëkk bi bariwul ndox benn teen la am comme benn teen la am da ngeen di ay ayloo giléem gi tey waa dëkk bi ñooy root ëllëg giléem gi mooy naan te giléem gi bu bis bu mu waree naan suba teel lay kay dem naan teen ba yépp benn ndox dootu fa am bu sëggee ci teen bi lépp lay naan benn ndox dootul ball ëllëg rek léegi fitna ñëw na seen kaw ñu commencé ci loolu ba yàgg jigéen ngeen baal ma yàgg naa def loo góor musiba am benn waay ci dëkk ba am ndaw su muy nopp bëgg ko takk mu dem fa nag bi ngombali ngonnali waxtaan ak moom ndaw si ni ko yéen du ngeen tus yéen ponkali góor nekk ci dëkk bi jigéen ñi di xëy duñu mën a am ndox te benn gileemu saalix gi tax ndox di fi manqué ngeen di tourné naan da ngeen di wut ay soxna yéen da ngeen mën a yor jabar accam waa ji mel ni suma xarit ni lool dinaa ko réglé dégg nga loolu dinaa ko regle waaye bu ko réglé musibaam mu dajale waa dëkk bi yépp ni leen giléem gi nañ ko rey te boo jàngee ca wa Shamshi waxoon na leen ni leen giléem gi bu leen ko laal de yàlla wax na leen lool bu leen ko laal bu leen ko dóor bu leen ko sonal bu leen ko takk bu leen bàyyi leen ko rek ci dëkk bi muy dox moom du màtte du gaañe kaawteefu yàlla waaye buur ne fa aqaruha ñu loj giléem nga cor ko fa dem dama alayhim rabbuhum bi zanbihim yàlla ne biñ ko coree rek man tamit ci laa wàccee ci ñoom mbugal yéeféeri makka yi tamit daal ni yonent bi alayhi salatu wasalaam su fekkee ni yonent nga defal ñu ni saalix defoon aw nitam mooy génnee giléem indil kaawteef loolu la aaya bi di wax buur nee na wa yaquulu ma ngay wax alladina gaa yi nga xam ne kafaroo weddi nañu yonent bi ni law laa unzila te yàlla wàccee alay ci yonent bi aayatun kaawteef min rabbihi ku jógee fa boroomam kon ni yàlla wàcce woon yat jox ko Moussa mu nekk jaan loxoom ba di weex ak gileemu yont yàlla saalix ga ak yont yàlla Isa ni mu daan dekkale ñu dee biñ ko waxee loolu rek yàlla ni yonent bi innama anta xamal ni yow munzirun waaraate kat nga maa la yónni pour nga waare waaye indi kawteef nag loolu sa yoon nekku ci loolu ci sama loxo la nekk dégg nga innama anta xamal ni da ngay waare rek wala kulli xawmin ñeel na bépp nit haadin yonent boo xam ni moom laay yónni ci ñoom mu leen di gindi jëmaleen ci yàlla kon waxu kaaw bu ca wax waaye yàlla mujj na jox yonent bi junniy kaawteef yonent bi yonent yi ëpp kaawteef mooy yonent yàlla Moussa paasewul juróom-ñeent Seydina Muhammad yàlla jox na ko junniy kaawteef te taxul waa màkk gëm جيم الألوف لهذه الخلق جني كوتيف يعني انت بيالا جحنك أمو لم دفل وانا لين جيج تي دزير بي تخل نجم خارنا نيوم نخم جيخ ميور بين كوب نخ نسوت كوفي بين كوب نخ بي تي لخو بي متفلي تي كوب نخ بي موم يونين تي بي سولدار يب نانتي فاسي نان giléem yi naan ñépp naan ci benn guuxu ndox boo xam ne fii la ko def loolu doy na kawteef doyul kawteef loolu doy na kawteef xare badar li ngay dégg ñu ni rey nañ ci yéeféer yi juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk te booba jullit ñi matuñu junni ñee di ay junni bi mu demee ba xare bi takk mu xam ne lii du dox dafa tourné gees rek gis ay xeer yu ndaw ay xeeru béton comme béton yu ndaw yi mu tibb ci xeer yi nii moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàll daal di shaatil wuju ëpp sànni ku mu dal comme balu fetal loolu kaw teef la sang bu tedd bi ci Medina def na ko toog na romb benn sàmm sàmm bi sàmmi woon jàpp benn mbët ci suba ray ko fees ko butti ko dindi butti ji pour bu demee guddi gi mu lekk ko mu ni sàmm bi kaay ñu waxtaan sàmm bi ñëw mu ni ko yàllaa ma yónni sàmm bi ni ko luy wane ni yàlla ma yónni luy lu may wan ni yàlla moo lu yónni yonent bi ni ko man yàlla ma yónni te man duma ma fen sàmm bi ni ko mbëtt mi di soo ko dekkalee ma xam ni yàlla la yónni yonent bi ni ko teg ko ci suuf mu teg mbëtt mi ci suuf yonent bi raay mbëtt mi mbëtt mi dekki ni ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fekk na benn benn benn rëbb boo xam ne du jullit jàpp benn kéwal yeew ko ci benn taatu garab di wuti dugg ci àll bi di rëbbaat yonent bi romb kéwal gi kéwal bi ni ko assalaamu aleyka ya rasulallah maa ngi leen nuyu yow yonent bi yonent bi ñëw mu ne ko damaa bëggoon rek ku ma xettali fii benn waaye moo ma jàpp yeew ma te ci guddi gi laa am ay doom duggoon ci àll bi pour wut lu ma lekk pour am soow dem nàmpal samay doom waa ji nag jàpp na ma yeew na ma xalaatuma sama bakkan sax waaye sama doom yi ak nan naree xiif ñoom laay xalaat ma bëggoon nga yeewi ma ma dem nàmpal sama doom yi te ñëw yéen bi ni ko danaa la yi waaye balaa ma la yeewi damay xaar ki la yeewoon ñëw mu toog tuuti rëbb bi yegsi fekk yonent baa ngi toog ci booru kéwél gi mu nuyoonteeg moom ni ko baal ma kéwél gii rek laa bëggoon nga yeewi ko day nàmpal ay doomam te ñëw rëbb bi ne ko waaw yow li waa Màkka di wax dëgg la yow wéroo man kéwél gi dinaa ko yeewi di ko bàyyi mu naan mu ñëw yonent bi ne ko kéwél ak nit bu la gënal mu ne ko nit mu ne ko su kéwél gi ñëwul jëlal buum def ci sama baat may sa jaam xanaa loolu gën mu ne ko d'accord mu ne ko yeewil mu yeewi fi mu ko yeewoon téye buum gi nii naan ko ah maa ngi koy bàyyi de te su ma ko bàyyi su ñëwul yow moom doo dem mu ne ko maa la wax loolu mu bàyyi kéwél gi kéwél gi dem daw daw ba poussière bi jóg rëbbkat bi ni yonent bi ah kee <laughs> kee dootoo ko gis mu ne ko baax nañ toog ñu to diir bi ñu defee zawaal ba léegi jëkk ba yàgg ñu séenaat poussière bi di jóg kéwal gi yegg si sàmm e, rëbb bi xool kéwal gi xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko waa lii nag mu ne ko kéwal gi sax xam na ni man yonent laa kéwal gi daan ni ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waa ji ne kéwal gi demal daal di sukk ci kanamu yonent bi ni ko ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu annaka rasulullah kon yonent bi yàgg naa wane ay kawteef sallallahu alayhi wa sallam lu ne def na ko xar na weer wi ñaari pàcc téye na jant bi moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon ñoom bu koy laaj kawteef yàgg def kawteef moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam bàyyi na loolu yàllaa ngi wax nag kàttanam buur nee na allaahu yàlla mu moo xam maa taxmilu lu muy ëmb kullu unsan bépp jigéen yàlla nee na jigéen su ëmbee bis bu njëkk bi mu njëkk a ëmb yàlla nee na man xam naa góor la wala jigéen la xam naa benn la walla ñaar la wa maa tadiiqu ak la nga xam ni dana wàññeeku al arxaamu njurukaay ya lan la bëgg a wax foofu sa soxna di ëmb tey ëmb bi am juróom ñetti weer ak fukki fan doom ji judd beneen bi mu ëmb am juróom-ñeenti weer ak fukki fan mu soogaan bi judd diir boobu muy am yàlla nee na man xam naa ko ba teg ko ba pare mooy wa maa tadiqul arham muy wa maa tasdaadu ak lu yokk maanaam ëmb bi nekk na juróom-ñetti weer ak ñaar fukki fan ëmb bii nag dafa def tasdaad dafa dolleeku nekk na moom juróom-ñeenti weer yu mag ba teg fukki fan yenn saa nga dégg ku jigéen ku la ni ah man de ñaanal ma parce que lekk naa sax sama weer luy lekk naa sama weer mooy sama neuf mois yi mat na ba ma dugg sama dixième mois alxuraan nee na yàlla ne ne wa kullu shay loolu yëpp indoo fi fa yàlla bi miqdaarin yàlla am na fu mu ko nattale fu mu ko teg bu doon lu muy waññi wàññi na ko ba pare teg ko ci benn place dégg nga bu doon lu ñuy takk takk na ko ba pare teg ko ci benn place moo tax mu ne wa loolu yépp mu la wax عنده في الله بمقدار أمن وقت وقام ندوك جيجي مك نتاك دوك جيجي عالم الغيب يا الله رك موي خام لفاد لن يوغل ألك لو يا الله موكو خام عالم الغيب وطن سمين سيرين يا الله يا الله يقول نيرم ومدان وقت نمبا مختار من لا لبايك منو يا الله خام ندينبو خام نتاي ألك لغنا خام من عالم الغيب يا الله رك موي خام لفاد والشهادة أجل تيو خم غني تخمل سخ اللي فادو اللي تيو سخ لا يوخ نتخمل لب وقم لا اللي فادو نيكي تي بير زاوي بي نيب نيب خمو نيات نيت سخ لا دودو داغا سيغي ني كونتلن بولن كونتي با خم خمو كين كو نيك لو نيك تي بوشو خمولو كو يالا كو خم خمو كين كو نيك فيمو توك يينيم سخلام لولو ييب عالم الغيب يالا مو خم لي نبو وشهادة أجلني فان دي فين الكبير يالا موي أجي مغ تي ماغيول يارام الكبير يالا موي أجي ري تي ريول يارام سوني ديو دافا ري دا نيو خول يارام و دافا ري واي باتو كبير بو جوغي سي يالا نان الكبير يالا مو مغ تي ماغيول يارام المتعالي يالا موي أجي كوويج سواء مويام منكم تيين من كو خامني اسر نبنا alxawla la muy wax waman ak koo xam ni jëhëra feeñal na bihi ca la muy wax ki wax ci suuf ak ki wax ci kaw ñooyam ci yàlla ni muy déggee ki wax ci kaw noonu lay déggee ki wax ci suuf loolu rek la lay wax fii mu ni sawaun way yemoo la minkum ci yéen man koo xam ni asarra nëbb na alxawla la muy wax yàlla dégg na ko wa man ak koo xam ni jëhëra feeñal na bihi ca la muy wax yàlla dégg na ko wa man huwa ak koo xam ni mustaxfin ma ngay nëbbatu bi layli ci guddi gu lëndëm pour def la muy def yàlla ne maa ngi koy gis wa saaribun ak koo xam ne ma ngay potoxlu potoxlu mooy faraj mu gaaw loolu mooy potoxlu wa saaribun ma ngay potoxlu bi naari ci bëccëg kooku itam yàlla nee na gis naa ko loo sax ñeel na yàlla lii yëpp nee na maa ko gisee sama bopp waaye nee na su ma ko gisul woon sax am naa ñeneen ñu ma leen bàyyeel te ñooñu ñu ngi gis li li ngeen di def di ma ko wax mooy malaaka yi mu ne loxoo ñeel na yàlla mu aaqibaatun ñoo xam ne ñoo leen di surveiller mu aaqiba mooy ñu leen di fuglu ñoo xam ne yéen rek lañ topp malaaka yi yàlla bindal ñoom ñun rek lañ topp loxoo ñeel na ko mu aaqibaatun ay malaaka yoo xam ni ñoo ñuy wattu min béy ni yi ñu ngi ci kanamu yàlla min béy ni yi ñu ngi taxaw ci suñu kanam ñun jaam yi wa min qalfihi ak ci suñu ginnaaw yahfazuna wo woo ñooñu wattu min amrillaahi ci ndogalu yàlla bayina bàyyi na nag mi ngi wax ak fii jaam ay bi julit bu nekk war na ko deg ci xam ko bari na ko xamni tay amoon na tey mu ñàkk fekk li ko ñàkkal moom moo ko def boppam bari na koo xam ne tey mi woon ci xéewal tey xéewal ya dem na fekk moo ko def boppam lu tax moo ko defal boppam fa mu tegoon tànkam diggante boroomam fa la teggi tànkam loolu la aaya bi di jàngale yàlla ne inna allaha naka yàlla laa yugayiru du soppi maa bi qawmin xéewal gu mu wàccee ci kaw nit yàlla ne duma ko dindi mukk xatta yugayiru lu dul ñoom dañoo soppi maa bi anfusihim ci melo yu baax yañ daan def dégg nga wax sooy def lu baax sax ca te nekk ca yàlla itam dina defal lu baax rek sooy def lu baax ba yàgg nag ngay rocc sa loxo di def lu bon yàlla itam xéewalam yi mu téye ko rek loolu lay wax fii rawatina ab jullit moo tax mu ne inna allah naka yàlla laa yugayiru yàlla du soppi maa bi qawmin xéewal gu mu def ci aw nit yàlla neen du ma ko dindi mukk xatta yugayiru lu dul ñoom dañoo dindi maa bi anfusihim la nekkoon ci seen bopp lañ doon toppee yàlla mu rafet mu ne wa isa araada su nammee yàlla nag du namm day dogal kon da nga naan wa araada su dogalee allahu yàlla bi qawmin ciw nit su an mbugal su yàlla nareen mbugal aw nit fala maradda kenn mënul delloo loxoo ñeel mbugal moom kenn mënu ko delloo déedéet wa maa lahum déet di leen ñeel ca mbugal moomu min duunihi ku dul yàlla min waa waalin kuy tee mbugal ma wàcc seen kaw kenn mënu ko tee yàlla ngi wane waat kaw teefam mu ne huwa moom yàlla allazi mooy buur bi nga xam ni yurikum moo leen di wan albarxa melax gi xaw fan ngeen tiit su fekkee da ngeen nekk ci àll bi di tukki soo nekkee ci àll bi gis melax dangay ngay tiit waaye wa tamaan muy dalal sa xel su fekkee yaa ngi ci kër gi ndax da yaakaar mu taw gàncax gi sax loolu lay wax foofu mu ne huwa moom yàlla alladi mooy buur bi nga xam ni yuriikum moo leen di wan albarx melax gi xaw fan ngeen tiit su fekkee yéen a ngi ci tukki ak dënu ya wa tamaan melax googu def leen def leen ak xemmam téef ngeen yàkkamti taw wa yén si u yàlla mooy bind asixaaba niir ya asixaala yi fees dell ak taw wa yusabbihu سبال الرعد باتو ملاك بوبو nga xamni mom lañu dénk nir gi dana sabbal lan lay sabbal bi hamdihi ci sant yàlla subhanallahi wa bihamdihi ay bi motax ñu tudde suratul ra'd suratul ra'd wa yusabbihu dana sabbal rad ملاك بوبو nga xamni batam moy mooy dënu gi bi hamdihi ti di wax subhanallahi wa bihamdihi di sabbal yàlla nee du moom kese di nee wal malaikatu malaika yëpp min qifatihi ni ngi sabbal yalla ngir ragal ko wa yursilu yàlla dana yoni as sawaiqa ay jumi safara yu génnee ci niri te moy dënn yoy di wacc fa yusibu mu lak bihi biha ca dënn yoy man yashaw fu yalla sop pour mu lakk waxum ñom yu jaadiluuna ña ngay dàggasanteeg yonent bi fillahi ci yalla waye waxuma mom yalla shadidul mihaali yàlla ku tar ni muy mbugale ku tar ni muy jàppe la loo ñeel na yàlla daawatul xaqi baatu dëgg bi te mooy kalimatu laa ilaha illa allah kooku yàllaa ko moom waaye walladina gaa yi nga xam ne yadduuna ñu ngay jaamu min duuni yi lu dul yàlla te mooy xërëm yi ñoon laa yastajibuuna seen xërëm yooyu duñ leen duñu wuyu loogum ñee leen bi shay'in ci dara xërëm yi mun leen wuyu nee na kiy jaamu xërëm daal xam nga nu mu mel dafa mel ni ki dem ci teen taxaw ci pindu teen bi yorul baag tàllal loxoom nii naan nii pour ndox mi egsi ci gémmiñam mu ne di egsi ci gémmiñam mu ne kiy jaamu xërëm nag noonu la mel moom lay wax ni kii jaamu xërëm mi ngi mel ni illaa kabasiti kaffayhi mi ngi mel ni ki tàllal ñaari loxoom ilal maa i jëmale ko ci teen bu xóot pour lan li yeblu xat ngir na yegsi ca ngir na yegsi faa awoo li yeblu xat ngir na ndox mi yegsi faa awoo ci gémmiñam yàlla ne wa maa huwa déet ndox ma bi baalixihi muy yegsi ci gémmiñam wa maa duwaawul kaafirina déet yéeféer yi jaamu gi nii jaamu xërëm yi illaa fi dalaalin lu dul mu nekk ci cànkute réer gu màgg a màgg ca la nekk buur ne walillaahi ñel yàlla kaka na fa muy sujjóot walillaahi yasjudu man fi samaawaati wal ardi tawan wa karhan wa dilaaluhum bilquduwi wal azan allahu akbar Allahu akbar. Evet. bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ci sujjóot yi nee booy jàng alxuraan donte yaa ngi ci kaw garab ngay jàng foofu alxuraan ba egsi ci aayu sujjóot yonent bi ne na wàcc ba ci suuf nga sujjootal yàlla subhanahu wa taala ñu soo ko doon jàng donte yaa ngi ci kaw garab da nga sujjoot donte da doon julli sax soo jàngee aaya bi da nga sujjoot da nga dem sujjoot dellu siwaat fa nga nekk nit fi muy jege yàlla mooy fi sujjootee julli li muy foor foor sujjóot moo ci gën a fort ci julli sujjóot yi ci julli yëpp bi ci gën a fort mooy bu mujj moo tax nga gis ñenn ñi bu ñuy julli seen sujjóot bu mujj bu ñu xaw fa yàgg di ñaan yàlla subhaanahu wa taala kon nañ fonk sujjóot jël jë teg ko ci suuf sujjóotal yàlla subhaanahu wa buur ne walillaahi ñaan yàlla ولله نيالنا يالا يسجد لي سجوتال من في السماوات لب لو نيك تي اسمان والارض اك سوف تو عن فك با ني سجود داف لين نيه موي نين جوليت ني لاي وخال جوليت كو غيس دي سجوتال يالا واي بودي جوليت نك مو موم تو عن بودي ييفر تامي دي سجود واي يالا نين كو كرهن فورس فورس yàlla nee na lépp lu nekk ci kaw suuf damay sujjootal ñii nag sujjoot bi daf leen di neex ñu def ko tawaan comme ñun léegi kenn ñu ñoo sujjoot ñoo jàng ba egsi ci aaya bi yonent bi waxoon ku si egsi na nga sujjoot rek ñun ñëpp nga dëpp sa jë ci suuf sujjoot sujjoot bi nag am na charte ngeen baal ma bu fekkul nga yor njàpp doo ko def dégg nga boo koy def tamit bëgg nañ nga jublu penku am na ñoo xam bu ñu jàngal xooleen fam leen fekk rek foofu la ñuy sujjoot mais fii la da jublu penku en même da nga yor njàpp am na itam ñoo xam ni teg nañ ci benn wax nañ ni su dee waxtu wu dagana naafila nga sujjóot ñu ni déedéet sujjóotu alquran bi moom amul waxtu wu dagana naafila saa su nekk rek su la fu mu la fekk rek na nga fa dem sujjóot waaye bu ko def nag fekk yoroon jàpp boo sujjóotee su tamit yàlla rek ngay sàbbal soo naa ne allahuma lakk sajjat fuaadi moom la yonent bi daan wax wa bi ka amana xawl bi allahuma axfir li warhamni mooy allahuma yow yàlla bi ka ci yow sajjada la sujjóotal fuaad yi sama xol waxuma la jëb yi ma teg ci suuf waaye xol bi sax mit ci suuf ma lay sujjóotal wa bi ka amana qalbi yow yàlla yow rek laa gëm gëwuma keneen allahuma axfir li warhamni yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma yërëm te nga jéggal ma yàlla nga ko yàlla boole defal moo tax mu ni walillaahi ñeen la yàlla yées yudu lay sujjóotal man fi samaawaat yi lépp lu nekk ci kaw asamaan yi wal ardi ak suuf tawaan ci seen coobare moo loolu mooy ñi gëm yàlla waaye wa kër xan nag force itam dana sujjóot mooy ñan naafiq yi ak ñi weddi yàlla yéeféer yi ñu ni kër xan lan moo tax nga ni force mu ni benn ñu sujjóot ci seen sago wala ñu daje yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu rocc jaasi xeex a ñoom jàpp leen ay jaam ñu tuub dugg ci diini lislaam sujjóot nga par force waaye yàlla nee na même ñom buñ ma bañé su jotal nanu xamni wa zilaluhum sen tak ndeer ya wa zilaluhum sen tak ndeer ya bil qudwi ci suba sa wal azali ak ca ngoon ya mag ñu may su jootal yàlla nee même ki ma bañé jaamu neena tak ndeeram suba ngon mi ngi may su jotal moo tax mu ni wa zilaaluhum seen takk ndeer ya seen keppaar ya bil xudu wi suba wal azali ak ngoon ñu ngi may sujjootal léegi nag bàyyi na loolu mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeféer yi nag laaj leen nag xul waxal yow muhammad nga wax sa nit ñi ni leen man rabbu samawaati ana kan mooy borom asamaan yi wal ardi ak suuf yi xulillaahu waxal yàlla loolu mooy tontu li xul waxal afa taxa afa afa taxastum ndax da ngeen jàpp min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa mu méngoo seen mbir ngeen koy jaamu te mooy xërëm yi te ñooñu ngeen di jaamu laa yamlikuuna mënañul mënalul leen li anfusihim ñeel seen bopp nafaan benn njëriñ wala darran wala benn lor kii jaamu xërëm xërëm mënalu la dara ah <laughs> mënalu la dara ndegam boo doon jaamu nit comme yow mënalu la dara waxuma la ak ab bant waxuma la ak bant motax boy jaamu da ngay jaamu yàlla mi la meunal dara sooy yaakar da ngay yaakar yàlla sooy wëru da ngay wëru ci yàlla sooy xettaliku da ngay xettaliku ci yàlla loo tax sunu sëriñ ba Cheikh Alhaaj Malick radiallahu anhu waxoon ni fa muftakhirun bi muftakhirin yunadi yudha'afu dhi'fuhu fi kulli hin neena fa muftakhirun ku ñak ba melni ab xërëm bu ñu taxaw wala ku ñàkk ba mel ni doomu aadama amul dara nga dem yow yow doomu aadama bi ñàkk nga dem bi muftaxirin ci benn xërëm bu ñu teg nii gën laa ñàkk ngay dem ci moom di ko ñaan wala di sàkku ci moom ndimbal mu ne afu day gën a fulu day gën a yokk difahu sa néew doole googu ak sa néew kàttan googu fi kulli xiinin ci bépp waxtu soo demee ci ku mënul nga bëgg mu mënal la te moo mënul doo mën du mën ولا لا القران اللي وقفي بورنا نقول وقال هل يستوي ندخ دنا يمو الاعمى يفير لي فيري في فيري وفي سلمخ اعمى موي فيري سلمخ موي فيري غومبا واي فيري ول في غومبا قل وقال هل يستوي ندخ دنا يمو الاعمى يفير والبصير اكي غم خم نتا مو بي اندي باتو اعمى موي كي غمول يالا مو كودول كيسيام رك ها الله وقفي ما من يقول وقل هي يستوي نخ دانا يمو الاعمى سلم قول البصير اك كي كي غيس ام هل تستوي نخ دانا يمو الظلمات كي ود يالا ونور اك كي ام جعلوا ولا نيوم دا شركاء اي بوكال بوكال يوي خلقو نخ دانيو بيند كخلقه كوم ني يالا فتشابه بنورو الخلق سين بوكال يل لا ني بيند اك لي يالا بيند عليهم تي نيوم قل وخال الله يالا دال قال خالق كل شيء يالا بيند لب وهو موم يالا الواحد موي القهر القهار موي كيغا خامني موي نوت جامم يب انزل واتينا من السماء جوغي سي ما اندخ تا موي تاو فسالت مو اوديه اي خور بقدرها كمم xur wu nekk jël la nga mën a jël ci ndox ba fees dell faxtamala daal di yanu asaylu yol wa sabadan puurit raabiyan bu yëkkatiku puurit moomu di génnee ci taw bi nee na ci loo xam wa mim maa tuqiduna am ci puurit moo xam sax day mujj nekk safara alayhi ci moom fi naari ci safara ibtiraa xilyatin nee na ci ngeen di sax defar ay takkaay aw mataain wala ay bagage ay yére zabadun puurit moomu mislahu comme moom kadalika naka noonu yàlla di joxe misaal ci puuritu taw yadribu lay dóore ay misaal allahu yàlla alxaq dëgg noonu la mel wal baatila ak caaxaan dafa wax ne dëgg ak caaxaan daal dafa mel ni bu tawee ndox mi yoll ndox mi am loo xam ne dafa dem ci xur yi di fay taa des fa di jëriñ nit ñi la yoll nag topp mbedd yi dem bu mujj taawul fenn daal di fen suuf sa wow neen dëgg mooy la taa la nga xamni mo yol nak ba fer lolou moy tiaxan mom lay wax ni fa ama zabadu naka puurit ma faye sa bu fay dem jufaa mujj nek rek lu niin wa ama ma yanfau nasa la nga xamni nak da fay jeri nit ñe ci ndox ma fa yëm ko su da fay sax fil ardi ci suuf ñoral gantax ga ñoral xetu mbay bañu ba ñu mën cee jëriñu mu ni kadalika naka nonu nak yedribu lay leerale allahu yàlla al amsaale léeb yi li ladina ñeel gaa nga xam istajaabu topp nañu li rabbihim ñeel seen boroom ñeel na leen alxusna àjjana ëllëg yawmal qiyaam yàlla nañ ci yàlla boole wala lii ne gaa yi nga xam ni dem yestajiboo wuyu wuñu loxoo ñeel ko te mooy ñoo ko ñoo ñu weddi yàlla buur nee na walaw law law annahum law anna lahum su fekkoon ñeel na leen maa fil ardi li nekk ci suuf jamian boole seen wa mislahu ak leneen lu toll li ci kaw suuf maawoo ñu boole ko la sa daw pour ñu jote bii ci ñoom pour yàlla bañ leen a mbugal yàlla nee danaa leen mbugal ulaay ko ñooñu lahum ñeel na leen su ul xisaabi mbugal mu metti man te mooy safara wa ma waawum seen tàppuwaay jahannam mooy safaraw jahannama buur nee wa sa bon na almihaadu bii lal bii lal ndegam jahannama mooy sa lal lal boobu bon na aay bi ci topp mi ngi wàcc ci xamsatu ak aba jahlin xamsatu xare Uhud lañ ko rey moom la yonent bi tudde woon gaynde yàlla gi ci ñu daan défendre yonent bi ci la bokkoon xare Uhud lañ ko rey benn waay bu tudd wax si moo ko rey Hind moo ko reyloo ab jaamam la woon xare badar nag hindi ci lañu rey baayam borom këram mu am lu ko naqari lool mu ni dana ko fayeeku ñu wax ko ni ko xamsatoo leen xamsatoo ko rey loolu metti ko fekk am na benn jaam du wax siyu mu woo jaam bi mu ñëw mu ni ko boo reyee xamsatu rek mu goreel jaam waajal ko ñu daje oxoot jaambi bi mu ñëwee moom wutul kenn Hamza rek lay wut xare bu metti la uxut ci jullit ñi ndax rey nañ ci ñoom juróom-ñaar fukk xare boobu yonent bi sallallahu alayhi wa gaañ nañ ko ci jëbi gaañ ko ci óom bi saxaaba yi keroog ñoom ñëpp a daw Seydina Omar ñoom Seydina Aboubacar Seydina Ousmane Seydina Ali gaa yëpp a daw dañoo daw koy ba ca kanam mu mel ne Seydina Omar taxaw gaa yi taxaw ci ginnaawam mu ne ma delloo dëkk ba biir Médine lan laay wax yonent bi lan laay wax ana yonent bi bu ñu demee lu may wax ñaar kay am damay dem ñu ne ana yonent bi mën leen faatu na palaas tel la faatu wala ana yonent bi mi ngi nii wala man ma bokk ci ñu nii laajte rek waaye dellu man kese du ma ko def daal di wàññeeku dellu